dal leen ak jàmm xibaar yi dañ koy door ak itam élection yu présidentielle 2024 yu ñu jëm daanaka benn semaine moo des ñu daal di tëj li nga xamante ni si moo di parrainage waaye daal ki di Khalifa Sall ak itam Amadou Ba ñoom daal la ñu jàpp rek moo di parrainage la nga xamante ni si moo di seen ay parrainage ñenn ci ay candidats à la candidature à l' élection présidentielle de 2024 ñoom daal la ñu xam rek moo di jàll na la nga xamante ni si moo di seenub dernier virage ci seenub collecte de parrainage bu ñu demee ci côté bi nga xamante ni si moo di coalition taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ak itam coalition benn Bokk Yaakaar bu président Macky Sall ñoom la ñu xam rek moo di seen objectif daal atteindre nañu ko. ndax itam moom Khalifa Sall la mu xam ne rek moo ni bouclé na ab collecte am ci lu toll ci cent vingt mille parrain euh, semaine ba la ñu génn waaye itam ñi nga xam ne ñoo di ay nekk ay Amadou Ba ñoom ñële ñu ngay tiitaroo la nga xamante ni si moo di trois millions de parrain yi nga xamante ni si wala boog plus de trois millions yoo nga xamante si daal ñoom la xam rek moo di seenum njiit si moom lee daal di noo waaye nag mbir yi day mel ni des na de ndax itam ba jamono ji ñuy wax ak yéen am na ci ñenn ñoo nga xamante ni si nekk ay parti politique ak itam ay coalition ñu le ba tey mel ni ñu ngi ca wër bu méttee métti ngir wut li nga xamante ni si moo di ay parrainage boobu ba ñu ngi wër mën a gunoo am waaye daal nag bu ñu fàtte benn yoon kani date de limite des parrainages dimanche le 10 décembre lay doon ba tey ñu desandi ci wàllum xibaar

si moo di décompte bu parrainage moom la di Bounama Sall loolee la xamle nekk ca diwaanu moom mi lee di Bounama nekk secrétaire national des jeunes socialistes moom mi daal mu ngay accuser ñi nga xamante si ñoo di ay responsable euh, de l' pour la république di APR bu Linguère ñoom daal nee na dañoo trompé maanaam dañoo trahir kii di président Macky Sall ak itam son candidat Amadou Ba ndax bu ñu sukkandikoo ci Bounama Sall moom la mu xamee rek moo di nombre de parrain yi nga xamante si gars dañ koo wax daal jox ko waaye tamit di woo ki si moo di Amadou Ba moom mi mu daal amal ab groupe boo xamante ne si ñoom ne dañuy daal di saytu yooyee mbir fële ca diwaanu Daara. ba tey ñu desandi ci wàllum xibaar ak itam jiyee ji am fa nga xamante ni si moo di village bu tudd Kër Madické fële ca diwaanu Kaolack ñaari tout tànk ñoo fa ñàkk seen bakkan ci ak lakk mu nekk jiyee ju métti métti joo nga xamante ne si kenn xamut loolee lal na ak itam lan moo ko waral exactement loolee mu ngi am démb ci boori 16 bu ñu sukkandikoo ci journal bi di laas moom la mu xam ne rek moo di ñaari gone yu góor lan am na ñu toll ci ñeent at ñoom ñaar ñi la ñoo tàkk ba jeex tàkk ci googu lekk lakk. am na ci sax kenn koo xamante ni sii moom mi la am na ci ay blessé ba ñu daan ko yóbbu ca hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack. ba tey ci journal bi mu ngi xam ne ni daal di daal di gaaw woo ñi nga xamante ni si ñoo di sapeur pompier ñoom daal ñëw noon daal di maîtriser la nga xamante ni si moo di boobu lépp incendie waaye daal euh, teewut si ñaar nit ñàkk nañ seen bakkan ba tax na enquête ubbi nañ ko ngir daal di xam exactement lan ma waral bi lépp jéeya ba tey ci wàllum xibaar ak itam wàllum lu ba lëpp alal fii ci société bu njaboot am na ci fukk ak ñaar ci ay employé maanaam ñoo nga xamante ni sa ay liggéeykat lan dañu leen a teg loxo ñoom nag lan leen topp moo di détournement de cent quatre million de francs CFA ci suñu ay koppar maanaam téeméeri millions yu tegal ñeent suñu ay koppar ñoom ñi li ñoom la ñu lubal moo tax itam ñu daal di leen di teg loxo ñoom nag ñi leen jàpp moo di di de Diamaguène bu am mbaaw ñoom ñi leen ñu leen teg loxo gannaaw bu nga xamante ne si dañ leen a jiiñ boobu lépp mbir mu nekk scandale boo nga xamante si mu ngi sukkwe boobu lépp société bu njaboot bu nekk ca Mamel waaye lépp nag ñu ngi ko nemmeeku ginnaaw ba nga xamante ni si kii di directeur général moom mi la euh, dañu ko alerté ci ay disparition yoo nga xamante ni si ay produits yu ñu ko jaay ak itam ay marchandises ak itam di détourné loo nga xamante ni si ay revendu la ak yeneen ak yeneen yu daal moo waral nga xamante ni si mu daal directeur ba daal di subtene boobule mbir lañ ci mën a jàpp rek mooy ñoom fukk ak ci ñaar yooyee teg nañ leen loxo ba police mu ngi mënee ab lanketam ñu jeexalee ko xibaar xibaari bitim réew dem ba Mauritanie ak itam tey jii dëgg ga wàcc na ndax itam dëgg rek mooy mujj kookee ca Mohamed Ould Abdel Aziz moom fi nekkoon ci ay jamono président bu Mauritanie moom mi la di Mohamed Ould Abdel Aziz moom mi la condamné na ko lu toll ci juróomi ati kaso yoo nga xamante si daf koy tëdd waaye tamit yemuñ ci loolu dañoo confisqué lépp loo nga xamante ni si moo di ay bien maanaam loo nga xamante ni si moomeen lam la la tax njaaru koy confisqué nag moo lañ koy topp rek moo di enrichissement illicite maanaam euh, jël alal boo nga xamante ni si léwu ko ak itam blanchissement d'argent moom nag Mohamed Ould Abdel Aziz li nga xamante ne si moo di cour criminelle chargé des crimes de corruption ñoom ni le lañ ko njëkkoon a wax sax moo di vingt ans de prison yoo nga xamante ne si moom la daf koy tëdd waaye daal dañ ko ko waajal ndax itam mbir ya daa mel dafa xaw a dëppootul ak la nga xamante si moom lañ ko doon toppee loole daal moo waral ñu daal di koy tëj loo toll ci cinq ans de prison ferme. moom ak ñenn ci ay jegeñaaleem ñu ci mel ni ay ancien ministre ak itam ay premier ministre am ñoom ñëpp daal dañuy tëdd avec sursis waaye itam dañoo confisqué li nga xamante ni si moo di seeni ay moomeel ñu fàttali ni moom Mohamed Ould Abdel Aziz moo fi nekkoon président bu Mauritanie de 2009 à 2019 lañ ko doon toppee nag moo di corruption blanchissement d'argent ak itam yeneen délit financier yoo nga xamante ni si moom ile defoon na ko toll ci 90 millions de dollars loolee lépp daal ci boobule procès bañ ko moom mi nga xamante ni si moo di Mohamed Ould Aziz dafa lànkoon ba kandaar lépp ñu koy jiiñ moom mi lee defu ko ba tax sax mu doon wax naan dañ ko complot maanaam dafa am ab complot d'état ci seen biir loolee lañ leen indiloon tey ci seen tënku xibaar mbokki internet public SN TV ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah.